jëm ci maraag ma seey mi jolo suuf si dee ci li nga ci sa ay njaay si kàddu yu tedd yi may bind ngir way si moom kenn dootul mel ni yow ñu ngi lay siyaare dir yi ngir Bamba moo xeex ci bal takkul dir yi ngir maam mi indi leer ci yoon wu metti wi képp ku xam ni Baay Faal nga tey bëgg maam Cheikh Ibra Faal may sa biigi Kumba Faal moo wani yoon wi auzu billah bismillah na wàlli yàlla kenn du yow Ibra Faal Cheikh Ibrahima kal kamal ak faxtu rijaal góor yàlla yombul la salta qul jamal Ibrahima Faal Bamba gëneel bi Bamba taal yaram bi naan la Bamba woon kaw siraat ji gi ju leeri yaa ko naan mbër yëpp boole daan te faal turu loo sëgg beeg sëgg beeg burum yàlla mbaa jàmm nga am daabay maam Seyna bu jaar moo woon yoon wi bay fal moo doy waar mooy tudd turu yàlla bi ba muy xotti jawwu ci di yëngal a rast kursi yu bay fal moo jëfe ndigal moo joxe te kenn du ko laaj bay fal bu tëkku te wóor këram mooy àddina fi daaw si yow ah di roy ci Cheikh Modou Kara ak bay kenn ma max laaw tooñu ñu tooñu wuñu jëfi nañu ko rafetalaaw kon képp ku xam ni bay faal nga tey bëgg roy ci Cheikh Ibra Fall na nga am yar ma lu tey Cheikhi Bamba tey ngir moo taxaw jëli woon fandar ba nu seen ko tey rakkam ya mooy sawetaat ci ñun ngir mooy dox ba war ci ñun ko sant tey biiro bee fandar moo ati góor yaa fa jaar booy ku ci dul Tuuba keroog si ñëwoon nga wey soldaar sax waa tribunal keroog ñëpp xëy ka ni naan borom taxaw ko yàlla jiite bamba bay na góob na jàpp ràpp na ay sax simba bojo war na mën na gannaaw abu lu ne jëf na kook xam-xam murit na nga dégloo ràññil lu baax lu bon bu la ca kenn dégg bés nga xol bi jox bamba kon tëddal neewal الصلاة أمسي وسر وسلام على من تبع الهدى لوامن بمباكم ومويكيك لا إبراهيم فال gañ ma ci leer si yàlla na la faal yëpp sa xanti bàyyi ku ni faal yàlla